Aminata Touré nekkatul député bu assemblée nationale moom nag poste député boobu kon nag jëlee nañ ko ca gannaaw bi nga xamee ne ab vote am na te ñu ko amal di bureau bu assemblée nationale vote ba nag fukki voix ñoom ñoo ne oui sept ne non boobule wat na kon tax na ba moom nekkatul député kon génnee nañ ko assemblée nationale moom Aminata Touré nag gannaaw loolu àdduna kon. jëmale ci boobule mbir mu ne moom nag euh, yëg na ñu dàq ko ci assemblée nationale te nag mu jàppee ne loolu ab violation euh, bu loi la bu njiitu réew mi euh, Macky Sall def wante nag nee na loolu du tere xeex bi nga xam ne mu ngi koy xeex ngir daal démocratie gën a dëgër ci Sénégal ak xeex pour troisième mandat bañ a am nee dina wëyal di ko amal moom moomule Aminata Touré. ay député yu PDS nag te bokk ci bureau assemblée ñoom nag euh, bokk nañ ci ni woote pour ñu euh, dàq Aminata Touré kon ci assemblée nationale ñu ne nag euh, li ko waral ki nga xam ne moom mooy nafi Nafissatou Diallo di seen porte parole bu PDS wax na ko nee na nag ñoom daal li ni mel bi ñu ko defee daal dañoo bëgg a des ci doxalin bi nga xam ne kon moom la am. ndax sax mu ne booy xool ñoom ñooy ñi introduire woon bi kon ci constitution ak ci réglement intérieur bu assemblée nationale. communauté musulmane bu Sénégal dañoo nekk ci dëcc gannaaw bi nga xamee ne nag euh, soxna Maymuna Mbàkke ak ki ñuy woowee Thierno Abdoulaye Sow dañoo génno àdduna soxna Maimouna Mbacké nag moom euh, sët la woon ci kii di Serigne Touba Thierno Abdoulaye Bousso nag moom moo nekkoon représentant bu xalif général des Tidianes fële ca Mbacké ñuy ñaan yàlla yërëm leen xaraleen aljana xibaaru Afrique dañ koy tàmbaleek euh, réewum euh, Côte d'Ivoire foofu nag 49 soldats yi nga xam ne dañ leen jàppoon fële ca Mali te mu jëntal ga ñu bàyyi leen te sax ñibbi woon nañ foofule seen dëkk le 6 janvier ñoom nag euh, dañ leen daal euh, décoré li ñu naan chevalier de l'ordre national euh, de la république ngir nag kon liggéey bi nga xam ne daal def nañ ko ngir seenu réew bu weesoo yooyu la soldat sax am na yeneeni soldat yoo xam ne kon dañoo bokk ci mission Côte d'Ivoire ca Mali mission kon bu Nations Unies ca Mali ñoom it décoré nañ leen épidémie bu choléra ba am ca Malawi 2022 ba léegi ñu ne nag jot na fa faat lu toll ci mille personnes ñoo ko xam ne ñooy ministère de la santé ñu ne sax lim ba euh, mille deux la kon mille de personnes yoo xam ne kon faatu nañ ci boobu boobule épidémie bu choléra ñu ne loolu nag day tax sax ba boobu boobule épidémie choléra nekk na boo xam ne mosul am ci dëkk boobu boobule di Malawi. xibaaru bitim réew benn ponk lay doon muy nag réewum Allemagne ñoom nag euh, nee nañ fi mu nekk nii nag pare nañ ngir joxe li nga xam ne moom mooy ay char ñuy woowee Léopard 2 ñu jëbbal ko Ukraine ci xeex bi nga xam ne kon ñu ngi koy xeex ak ñii di waa. Euh, Russie loolu nag euh, ñu ngi ko amal sax euh, gannaaw bi nga xamee ne kon ñii di waa Ukraine ñu ne nag lii dëkk boobu ñuy woowee Soledar bàyyee nañ ko ñii di soldat yu Russie chancelier allemand bii di Olaf Scholz nag moom nag nee na waa Allemagne daal dañoo bëgg a dimbale waa Ukraine wante nag bëgguñ sax coow am ci diggante russi ak ñii di waa OTAN xibaaru sport lañ koy jeexale gaynde yi Sénégal yu équipe locale bi fi mu nekk nii nag qualifié nañ ci championnat d'Afrique des nations ci quart de finale ya gannaaw bi nga xam ne nag kon dóor nañ 3-0. réew mii di Ouganda euh, depuis deux mille dix neuf sax euh, kon euh, lii di équipe locale bu Sénégal mënul woon qualifié kon ci lii di championnat d'Afrique des nation kon nag def nañ ab jaloore ñu war a nag dajeel ci boobule quart de finale ki nga xam ne moom mooy Mauritanie vendredi bu dix neuf heures te jotee ci saat bu Anaba lu ñu te tey ci xibaar bi suñu teewlu ñu